dañu am mbégteel ko lañ ci moo tax bu ñu ko dañ ko wax ne vraiment Adama yow lépp si lépp loo entrepreneur ànd nañoo moom nag kontaan si trop di remercier nag le conseil départemental parce que bu nekkoon ñoom ti am ñoo jël seen xaalis jël seen moyen jël seen temps yëpp def ko si di leen remercier bu baax aussi mu remercier le président du conseil départemental ak membre yi fi nekk yëpp di leen wax ne vraiment ñun ligue de vraiment kontaan nañu di leen ñaanal yàlla nag li ngeen mën de ren déwén yàlla ngeen mën lu ëpp loolu déwén yi ñaanaan yàlla toutes les régions Casamance Ziguinchor ñëpp ñëw ñu xam ko Koumpentoum aussi ñu mën ko dégg sur le plan de l'athlétisme daal pour di ko wax si sport aussi si autorité nag dama leen di ñaaxaat li ñu mënoon nañ ko gën a def mairie bi war na si def loxom département bi def si loxom département mi si def loxom ñoo di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla lii ngeen mën daal vraiment ren yàlla nañ ko mën déwén yéen département bu Koumpentoum kontaan ñu suñu xol sedd nañ dinañ wax fédération bi tam athlétisme que vraiment Koupentoum def nañ devoir Nous, en tant que ligue régionale compétition bu ñu mën organiser dinañ ko mën a def nous wax ne ni sax suñu xalat moy club am Koupentoum fi club bu xamné ni à la fédération amagu ko mais je pense que ñi avec le président du conseil départemental di ngeen am club inshallah, allah bu mbokk ci compétition nationale bi lool moy suñu bëgg